lama amanoo duñu gëm mooy tontu li bu ñu doxloo woon doj yi rijji suuf si wax ak ñi dee itam lama amanoo duñu gëm bal li laa ñeen yàlla lamru mbir ma jameen mboole laa li xëyrihi yàlla moom lépp du société du dara lépp moo ko moom afa man afa lam yaay si ndax xamul la si nañu nga xam ne amanoo gëm nañu ah muy an ji di mu xafaf nga ne an na foo luy dëgg tey dëgg law ye saaw doon te neexoon na laa bur yàlla la xàgga mu jubal naasa nit ña jaamiyaan ñëpp jaamiyaan mboole wala ye saar waaye nag du dañ la si nañu nga xam ne kafaroo ay yéefar lañu ca makka si boom di leen jot xaarixatun aji faagaagal aji jommale aji alak jekki ba guddi rek lëf daan ci seen kaw bi ma sànnawoo ci sababu seen kéefër gi aw tawul wala nga wàcc aw tawul wala nga wàcc yow yonent fu leen jege bi jëy si ko ci sa xare bi sa xeex bi nga wàcc xariban fu leen jege rey leen fu jege seeni kër min daarin seeni kër fu jege seeni kër nga rey leen ataa yaate ya ba dikk waxadullaay daalu yàlla waxadullaay ndimbalal yàlla li muy dimbalee jullit ñi ina laa nekki bër yàlla laa yoxlifu du war mukk almihaada daal ba du ko war du ko war wala xaddu tursiw dëgg la reetaanees na bi rusulin ay yonent min xablika ci la jëkk tasliyatum xeynonte la ñuy dalal xelam fa am laytu lu may muñale la si nañu nga xam ne kafaroo weddi nañu dama leen di muñal tuuti rek su ma topp astum ma jàpp leen fan sur seetal kayfa kaana naka nekke iqaab yi sama mbugal afama ndax ka nga xam ne muy yàlla huwa moom xaayimun aji saxla raqibun dafa taxaw tem xaayimun mi ngi taxaw tem ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci la mu fàgg la mu jëf ci aw yiw ak la mu def ci lu dul aw yiw yàlla ngi ci taxaw tem dara du ko rëcc dafa man huwa qaayimun ala kulli nafsin bi ma kasabat nag way am doom ak xorondoom way am doom ak sonqaleñ way am doom ak doomu aadama jey am doom lépp yàlla ci taxaw qaayimun ala kulli nafsin kenn ku ne moo lay taxaw doo ko jaa diw dee dafa amuti taxaw yàlla nag mooy taxawu ñooñu wa jaxaloo xam ne dafa am sama doom bu jàpp yaay mu yóbbu ko dispense ñëpp naan fa ak moom bu mu dikkee mu fekk am xaram ju xar ma kenn taxawu parce que rek doom ji tax ma nga ma nga mooy afa man wa xaayimun ala kulli nafsin wa jaxaloo ñu def suraka way bokkaale la ñeel yàlla xul waxal ni sàmmohum tudd leen yéen a leen tudd de tudd leen leen sàmmoohum ngeen tudd leen kon lafoo ñeel yàlla man hum ñooñu ngeen di tudde yàlla sàmmoohum seen turi bopp la de yéen a ko tudd yéen a ko tudd laa taag man maa taag asaag nangam ak hubal ak lu nekk am waccee sëkk jàpp dëgg pour na bee woon da ngeen di wax yàlla bi maa ci loo xam ne laa yàlla mu xamu ko fi lar la ci suuf lu yàlla xamul ci àdduna da ngeen ko koy bëgg a wax am bi saayirin am waxi fen rek la bi saayirin saayir la rek wax la ñu ñuy wax ci kaw rek zaayirin wax ju feeñ la rek minal xawli ci wax wax joo xam ne ji du dëgg bal suy na rafetalis na makrum seen pexe suy na rafetalis na makrum seen pexe li la si na ñeel ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ wa saddoo ñu fegu an sabilaay bàyyi fa diine yàlla wa man koo xam ne ki yóbbi lu réeral na ko laaw bur yàlla fama loo dee di ñeel ko min haadin kenn ko koy jubal lahum ñeel ne leen asaabun bugol rek fi laayaati ci àdduna dunya ga di kees reet jàpp wala asaabu laaxirati te mbugal bu alaaxira assaqu moo gën a tiis wama loom dee di ñeel leen min waaxin ku leen di dimbali minallaahi ci mbugal bu yàlla gi yàlla nee na masalul jannati melaw àjjana ji nga xam ne moom laa leen dig latti ji nga xam ne wuy de daalis na ko mu tàqoo nañu ragal yàlla tej bu ngeen xamul na mu mel tajri dana daw lanaaru ndox ma min taataa ci suufu àjjana ji ukuluhaa lekk ga ci àjjana lekkam nga daayimun du am mi at ñàkk mi at du am mi weer ñàkk wi weer du am tey ñàkk suba kenn du ko tere du doggant laa maqtootin wala mamnootin la mu wax ci saaru waaqaat daay mun du xaar at mu jeex du xaar ñetti weer yu ñu lay fay du xaar ah weer wi dee du xaar dara ukluha daayimun du jeex wa silluha kerga it daayimun jant mënu koo tax a defu naaj waaw tilka ajana joojule mooy uqubal la siina moo doon uquba daari jin weesu woon mooy mujjug ña nga xam ne ci tàqaw ragal nañu bokkaale waaw waaw bi ñu waxee uquba uquba lasina amano ba noppi nag bu ñu bu ñu waxee uquba lasina i tàqaw mujjug ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla nan wax uqubal kaafirina waaw wa uqubal kaafirina nag mooy lan mu ne wax ji mbutta soril annaaru doom mu jeex takk wala si na ña nga xam ne nag aatee naam jox nañ leen alkitaaba téer ba muy abdullah ibnu salaam yafroo na ñuy bëggee bi ma ci la nga xam ne unsila wàcce nañ ko ileeka ci yow muy alquran ñooñu mooy ñi nga xam ni ñooy am uquba daari li muwaafaqatihi ma indahum dëppoo nañoo la nekk fa ñoom nee na wa min al ahsaabi tukkee na ci kuréel yi nga xam ne nag ñi ngi ñëw ci yow di musrikoona yi kuréel yooyu la man koo xam ne yunkiru day weddi baadahu lenn ke sikkiri rahman aha day weddi lenn bëgg a gëm lenn innama ummatu xul waxal ne innama ummatu man daal liñ ma digal liñ ma digal innaka man yonent an ahbuda mooy ma jaamu laa yàlla mooy wéetal ko wala surat duma bokkaale bii ci yàlla ilayhi ci kenn adduma damay woote it ilayhi jëme ci yàlla duma bokkaale bii ak yàlla kenn nga ne adduma ca kanam danaa jaamu ilayhi jëm ci yàlla danaa woote ilayhi jëme ci yàlla wa maa bi sama tuubit ilayhi jëm ci yàlla wala nga ne maa bi sama delluwaay it ilayhi jëm ci yàlla nee na wa kasaalika naka noonu ansalnaaw lan wàccee alquran ukuman muy atte arabiyan ci langu arab la wàcc bi luxatil arab wala ni tabbata ndem topp nga nag awaawum seeni bànneex min baadi ma boo toppee seeni bànneex nag baada ma ca gannaaw ba nga xamee ni jaaka dikkal na la minal ilmi ci xam-xamu wéetal yàlla xam nga xam-xamu wéetal yàlla ba pare nag nga topp nag seeni bànneex moo tax mu ne wala ñu tabbat ndim topp nga awaam seeni bànneex bax dama gannaaw ba nga xamante ne jaaka dikkal na la minal ilmi ci xam-xamu wéetal yàlla maa lakka dee di ñeel la min waliyin ku lay wattu minallaay ci mbugalub yàlla ku la ci dimbali du am wala waaxin du amit ku la ci musal waaxin ak xaasin ak aadim nee na wala xat dëgg la arsal na yebal nanu rusulan ay ndaw min xablika ci la la jëkk wa jaal naa nu def aswaajan ay jabar lawum ñee leen booba dañ ne bu doon yonent jabar yu bari yi mu yor du ko yore wa suryatan ak i sët ak i doom ah ñu ne bu doon yonent ah kon jabar yu bari yi mu yor du ko yor jabar yi mu yor bari na lool te bari bànneex rek a tax Suleymaan amoon na ñetti téeméeri jabar ci ay gor amoon na juróom-ñaari téeméeri taara seen boole di junni ay jabar waaw ñetti téeméeri jabar ak juróom ñaari téeméeri taara booba luwaa bi tere denc lopp ñeent wàccagul booba luwaa bi ñëwagul wa kaana li abdihi daawuda daawuda baayam amoon na téeméeri jabar kon nag te yonent moom buñ fi jógee fukk ak benn rek la fi bàyyi wala xad arsalnaa rusulan wa ja'alnaa lahum azwaajan wa suriyatan wa maa kaana ñooña da leen a jëloon ba pare luwaa bi soo ko ñëw te jabaram kenn du ko jël wax na ko ci saaru laxsab ñii nga yor doo ci bàyyi kenn wax na ci saaru laxsab it gannaawam gannaawam kenn du denc jabaram waaw kon nag doo leen ba wa ma kaana nekkul li rasulin ñeel yonant an yaatee bu dikkat ilaa bismillaahi ndareet muy takk jabar wala muy indi dara ndareet ci ndigal a yàlla li kulli ajalin ñeel na bépp diir ñeel na bépp dig kitaabun ab dat buñ ko date limité ko ne bi dat bi bu ñëwee ci leen lii di xew yàlla nag loolu mu date ba noppi yem xoo dana far moom yàlla laahu yàlla mayesaw li ko neex ci àtte yi mu date ba pare mu far ko lii laa bindoon waaye far naa ko lii laa def léegi aha yam xoo laahu maa yesaw wa yusabitu dana saxali maa yesaw lii la woon waaye lii la yàlla dafay far dafay far dafay far dafay far dafay far ndax fi ñu sukkandikoo mooy juróom fukki julli yi ñu joxoon yonent bi mu di koy far ba ci juróomi julli foofu la ñu sukkandikoo kon nag juróom fukki yam dogaloon yam awlaaw maa yasaaw wa yusabitu dafay saxalit nag ci àtte wayin doo nekk na fa moom moom yàlla umul kitaab cosaanu téere la si laa taxayaru min u seyun mooy lawil mahfuus wa in ma wa in ma benn mbir yàlla na ko yow yonante nu woon la baala la si lenn la nga xam ne nay du daal nanu leen ko ci mbugal nu def leen ko ci sa dund aw na tafay naka wala nu faat la bugal leen sa gannaaw ndax fa innama alayka yow li la war rek mooy balaaxu waaye rek la waru la fa innama alayka balaaxu waale naa isaabu war na ci yow rek wax liñ la yónnee waale naa nekk na fi nun na moom yàlla dara waru ko waaye nekk na fi nun al isaabu rek la ba moo tax sàmm ba bam laaj yonent na ko yowmal qiyaam ku yor rek la bi yonent na kell mu ne ko yowmal qiyaam ku yor rek la bi mu ne ko yàlla mu ne ko yàlla ci boppam moo yor ak lebi yonent ne ko ah yow yonent fay na ma alaykal balaax wa alayna al isaab man maay rek la sàmm bi na gannaaw yàlla ci boppam moo yor rek lebi day sama xel dal na xam naa ne yàlla dina yërëm as càmmam gannaaw sidna omar yoru ko rek damaa defoon yowmal xiyaam day ñëw nga jox ko sidna omar kon dara du ko jàpp waaye comme yàlla ci boppam mooy réglé moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla ne ko dama bëgg nga may ma sama xeet yi ma réglé leen nga féetale ma ak ñoom mu ne ko déedéet li ma ci man mënoo ko ci li ma ci xam-xamoo ko ci sa xeet wi bàyyi ma ak ñoom rek xeetu yonent bi yonent bi da lay woo ba nga génn yàlla da lay woo ba nga génn mbooloom mu ngi la koy sa boroom nga ne ko yow mu ne loo doon nga ni jaam ko lu la war nga ni jaamu nga ne ku ñuy jaamu mu ne yow mu ne ku def lii mu ne man mu ne ko baal naa la nag baal naa la baal naa la yàlla ni yonent bi loolu maa ko man mënoo ko mënoo ko ndax yow boo ko defee mën nga cee am ay baat ndax sa moroom yonent yaa ngi fi awalam yaraw lu leen teree gis ana nag nun naati daanu joxe daanu dikke arda suusa nan xusa nu koy wàññi min a akraasiha ca teg ga di rey ulamaawu ya te aalim bu dee rek maar dee taali lam doon def kenn duut ko def ana naati arda min a akraasiha nuy wàññi suusa ci teg ga wala bur yàlla laa yu yem ku mu dana atte te laa mooqiba laa raada amul kuy ñaan dattel wallaahu yaxkumu laa mooqiba amul kuy ñaan dattel laa raada li hukmihi te yàlla attee mit kenn du ko delloo boo wute moom sariwul isaab ku gaaw atte la ku gaaw rek la la ku gaaw rek la la ndax yëf yi moom ah loo def rek bind nañ ko yóbbu bàyyi suuf ba ci yow lépp a ngi ci suuf bi ñu defal la ko ci sa dox yow man xëyaa ñu dañuy rocc duse bi rek génnee la ñu yóbbu woon ak suus ba communiqué ko muy benn ah laa moo xiba yàlla sari wal isaab waxat makara fexe na pexe pexe na seen mbir yëggul sax ci pexe ay pexe la lazina ñu nga xam ni min xablin jëkkoon nañu leen fële laa ñenn yàlla almakru dogal ba jàmmeen mboole yàlla du fexe day dogal yàlla mu xam ne maa tàkk si bi la nga xam ne fàgg na ko kullu nafsin bépp bakkan wasa yàlla mu xal seet naa xam alkaafiru yéefar ba almuraadu bii aljinsu xeet wa liman ana kan di ñeel ko uquba daari kër gu rafet ga ndax nit ñi juróomi xaaj lañu ñenn ñi ñoog malaayka yee bokk rang ñenn ñi ñoog yonante yee bokk rang ñenn ñi ñoog ulamaaw yi ñenn ñi ñoog jaamukati yàlla yi ñeneen ñi des nag ndab yaa ngoog ki nga xam ne dafa am xam-xam tey tasaare xam-xam ba ca nit ña ki am xam-xam tey tasaare xam-xam ba ca nit ña tey def la ko xam-xam ba sant ñooñu ñoog malaayka yee bokk rang ki am xam-xam tey tasaare xam-xam ba di ko jàngale ki nga xam ne nag ñoom moom amul xam-xam waaye am na alal di ko dimbalee ngir yàlla ngir yàlla rek ñoo ñoo ñoo yonantee bokk ran ki nga xam ne amul xam-xam amul alal waaye nangu naa jaamu yàlla nit ñi di ko roy ci jaamu yàlla gi muy ñaanal nit ña kooku moog borom xam-xam yi ñoo bokk ran ki nga xam ne amul xam-xam amul alal jaamu yàlla am taxul mu bari waaye jàpp na njaamuram du xas kenn kooku it mi ngi ci rangu quatrième waaye nag ki amul xam-xam amul alal nanguwul a jaamu yàlla du jàpp njaamuram kooku mi ngi ci rangu jiit yi ak jaam yi ni ñuy lore rek noonu lay lore ah ndax ki am xam-xam te du jàngale wala sat amul xam-xam waaye nangu naa jaamu yàlla waaye amul xam-xam lu bon bon mu ngi ci rangu doj yi doj moom du tekk kenn dimbali ko waaye nag boo amee soxla ci moom ñëw toj li nga soxla dana faj sa soxla waaye nag du tekk kenn nag dimbali ko nag moom doj moo tax ñu ne nit ñi juróomi xaaj lañu boo demee ci tankaaw yu moo ko wax ci fii la ko waxee nee na nee na wa yaqulu wax la si na gaa ñeen xam ne kafaroo we dinañ ñu ni yonent lasta déer yow mursalan bu yonent bi ne jóg leen julli ñu ni ko kenn yónniwu la bu ne wéete leen yàlla ñu ni ko kenn yónniwu la dindi leen asala kasaka mu ni kenn yónniwu la xul waxal ni kafa doy na sayidan seede bi lay ci yàlla bay ni sama diggante wa bay na ko mag sama digganteeg yéen ci sama dëgg waman ak doy na seede it ka nga xam ne hindoo nekk na fa moom xilmul kitaabi ñi gëm ci yahuud ak ñi gëm ci nasaraan ñu mel ne Abdullah ibnu Salaam ñooñu it doy nañ na seede alif lam ra allahu alam bi muraadihi bi zalika waaye asa lu mën a xew asa alquran kitaabun ab téere la ansal naa wàccee nañ ko ileeka ci yow li tuxruja li tax nu wàccee ko nag ngir na nga génnee naasa nit ña minu sulumaati ci lëndëmi kéefër ilan noori jëmaleen ci leeru gëm yàlla ah yaa ngi koy defee nag gis ni rabbim seen ndigalu boroom yàlla yor kattanu gëm yàlla nag mooy gëm loo nit mu gëm wa ma tasaaoona ilaa an yasa allahu rabbul alamin bi isni rabbihim ilaa siraatil asiisi mu badal nag mu badal nag ci li nu weesu mi ngi badal ci li tuxrija naasa min azulumaati ila noori ila noori jëm ca leer ga jóge ca lëndëm ga jëm ca leer ga continue nag ila siraatil asiis continue nag jëm nag ca yoonu aji not ja continue waaw continue min sulmaati ila noori badal nag ila siraatil aziz yi mu continue nag ila siraatil aziz moom jaan bi jëm nag ca yoonu aji not ja al amidi kay kañu sant am na ñu def jar allah muy badal ba tey wala muy atafi bayaan am na ñu def rafaa muy mubtad tànn nan nag nun rafaa bi allahu buur yàlla la si mooy buur ba nga xam ne loo ñal na ko maa ngi samaawaati li ci asamaan yi wa maa fi la leeg li ci suuf yi wa waylun taskare gu ànd ak mbugal ak gàcce lil keefiri na ñeel na yéefari min asaabin ci mbugal sadidin bu tar la si ne mooy ñi nga xam ne muy naxtun istaaboona dañuy tànn ndey si ne ñi nga xam ne istaaboona dañuy tànn yaxtaaroona dañuy tànn alayaata adduna dunyaa ga di kees alal axira si ne ko teg ci kaw al axira way su doona ñuy fegu an sabilillahi bàyyi fa yoonu yàlla wa yabqoona ñuy sàkku ci yoon woowu la ci wajan ndëngte jaar fu yoon wa jaaru ulayka ñooñu gaay fi dalaalin ñu ngi ci réer bayidin bu sori wa ma arsalnaa musunoo yónni min rasulin ndaw illaa bi lisaani qawmi ndarek dan ko yónni ca làmmiñu nit ñi na nit ñuy waxe
am na waaj ndax Idrissa gi ne.
na nit ñay waxe mais bi yàlla waxee lii alaaji maa ngi sëñ Tuubaa dem di sot sot ba indi fi ak ba indi fi diine ji
illaa bi lisaani qawmihi li bàyyi na ngir na leeral lahum ñeel leen fa yullilu dana réeral laaw bur yàlla man yi saaw ku ko neex wa yahdi dana jubalit man yi saaw ku ko neex ca ka mu neex ka jub neex ka bëgg a jub ka bëgg a jub la yàlla jubal ka bëgg a jub la yàlla jubal ka bëggul jub la yàlla réeral
waaw
woowu te moom yàlla al azizu mooy aji not ja al akimu mooy ki àtte dëgg wala xat dëgg la arsal naa yebal nanu Muusa noo yónni Muusa beyaati naa nu jox ko sunuy kiimaan yi juróom-ñeent kiimaan yi juróom-ñeent waxoon nañ leen ko ca saaru lalaat ñu jox ko kiimaan yi la ci gën a siiw loxo baag yet waag nangamat nangamat nangamat nangamat mbott yaag wetañ yaag lépp ca kiimaan yi la bokk deret jaag lépp ca kiimaan yi la aha lépp ca kiimaan yi la wala xad arsalna Muusaa bi ayaatina Muusaa nag ba muy dem dañ ko wax ni ko an dama wax man yàlla ni ko axrij axrij génneel axraja yuxriju lamar ja dikk di axrij bokkul ak xaraja yaxruju uxruj déedéet axrij génneel génneel xawma ka saw nit mina zulumaati ñu bàyyi ko ci lëndëmi kéefër moom la wax ci bopp saar wi ila noori jëmaleen ci leeru gëm yàlla wa sakkirhum waare leen bi ayaami lay ci xéewalu yàlla yi bi ayaami lay ci bisi yàlla yi bisi yàlla yi muy def bi ayaami lay ci kattanu yàlla waaye bi ayaami lay ci xéewalu yàlla yi bi ayaami lay ci xéewalu yàlla yi waare leen ko ina laayati na kay kiimaan fi saalika doy na ci loolu nga waar nit ci loolu waaye nag li kulli sabaarin nag ñeel na bépp muñaa kon muñaa kon muñaa kon koo xam ne kii moom lu ñëw rek mu muñ koo xam ne kii muñaa kon la sakkuurin santaa kon la waxuñu sabru rek sukkuru rek sabaar lan wax seexatul mubaalax sakkuur benn waaye bu yàlla ñaawal bind ba ñu ngi yor paacoor bu gudd boo xam ne bii paacoor bi xaw naa jot si woom yi bu takkee tubéy ji tubéy ji day yummeeku ba ndigg li nekk ci bitti sikkim baa ngi gudd gudd nag te du ko defar te tabaar xaw bind bi daal ñaaw na lool moo am jabar ju rafet lool gën a rafet ci jigéen ñëpp benn bi si jabar ji woo ko wam ñëw mu ne ko du naa yow de sunu kër gi sabaar ak sakkoor fanaan na fi mu ne ko nam fi fanaane mu ne ko ku mel ne yow am jabar ju mel na man ku mel ne man am jabar ju mel ne yow man muñ war na ci man yow it sant war na ci yow sabbaarin sakkoorin waskur fàttalikul waaye nag wa qalilun min ibadihi sakkoor sakkoor nag néew na lool wa qalilun min ibadihi sakkoor is qaala waxtu waxee Moussa li xaw mi ñeel sama nit sakkoor du jaage ne wax ci lami rek déedéet sukkuru ci xol lay nekk te xéewal ga la yàlla jox nga def ko fa nga ko war a def ndimbali ci ña soxla ndimbal waaye waxuñu nga dem mbaar ca ker da bàyyi fan maaj ba uskuro fàttaliku leen nihimata lay xéewal yàlla aleykum ci yéen isaan jaa koo xam ne ni musal na leen mi ne aali firaw na fi ñu ngi firaw na yesoo moonakum ci seenu mbon yesoo moonakum ngi doon leen musal sool asaa bi ñaalug mbugal nu mu mel way sàbdoona doon nañu rendi abnaakum doom ci góor ju judd mu digle ñu rey way sax yoona ñu bàyyi fa nisaakum ji seeni jigéen aha saalikum loolu la seen ba ci saalikum nekk na ci rey góor ñi bàyyi fa jigéen ña nekkoon na ca day balaa un inhaamun aw balaa un ndax balaaw ba moo andi xéewal ga balaa un natt bu rëy la ca woon de balaa un natt asimun bu rëy min rabbikum bàyyi ko ci seen borom waskur fàttalikul istaasana waxtu wax xamle ku xamle rabbukum seen boroom yàlla lim xamle lu mu waxale waxoon na ni li kulli sabbaarin sakkurin li kulli sabbaarin sakkurin jëm waxoon alxuraan ay firi alxuraan moo tax mu ne la in sakkartum la asidannakum la in sakkartum biñ naa ne moos bu ngeen santee sama xéewal sant sama xéewal nag mooy ngeen wéetal ma te jaamu ma mooy sant bi laa si dana kum kon de wóor na ma ni danaa leen dolli ca àllaaxira àjjana ndollan li du doon àdduna danaa leen dolli ca àllaaxira àjjana li nga jëfoon xéewal gi la ci am bokk na xéewal gi la yàllay jox nag ca àjjana mooy la asidannakum fil axirati la asidannakum fil axirati danaa leen dolli nag ci cant gi ngeen sant ndax cant gi mooy jaamu yàlla bu ko defee nag ma jox la àjjana fa man yaamal misxaala saratin xayran yarahu wa man yaamal misxaala saratin sarran yara fa man yaamal misxaala saratin ku def lu day na fopp fopp sara ndem jullit a ko def def ko ci àdduna yarahu fil axirati wala yarahu fi dunya wa man yaamal misxaala saratin fa man yaamal misxaala saratin xayran mu def ko ci aw yiw yarawo fi laxirati wala yarawo fi dunia wa man yaamal nag misxaala saratin saran yarawo ab yéefar moo def lu day ne fépp sarra ci xay yarawo fi laxirati wala yarawo fi dunia mooy la in sakkartum la sidannakum wala in kafartum su ngeen weddee nag bañ maa sant sama xéewal dootu indi laam waaye nag mu ne ah inna asabi sama mbugal day la sadidun tar na de tar na de aha waxul danaa leen dolli mbugal waxul danaa leen mbugal waaye nee na daal ida asabi la sadidun ndax yërmande jàmm ni wa qaala wax na Muusa Muusa yàlla nee na ko in takfiroo yaa ñi nga àndal ndem weddi ngeen antum yéen waman fil arde ak ñi ci suuf si jàmmeen mboole fa inna allah ñi mu àndal la ko tax di wax wa qaala Moussa li xaw mi Moussa ko wax nitam ñi yàlla ko wax Moussa Moussa ko nit ñi wa qaala wax na Moussa li xaw mi ñeel nitam ñi moom Moussa Moussa wax in takfiroo ndem weddi ngeen antum yéen sama nit ñi waman fil arde ak li ci kaw suuf si jàmmeen mboole fa inna allah ni ki buur yàlla xanniyun boppam doy na ko xanniyun ku doylu la doyluwul dafa doy xanniyun aji doy la mën naa defal boppam lépp xannidun ku sant la mahmudun alam yaatikum ndax dikkalu leen muy istifaamu taqrir yàlla soxlawul ko ko tontu day saxal li muy laaj li muy laaj xam na ko te da koy saxal moo tax istifham am taqrir am tawbiq am tan inkaar nee na ndax dikkalu leen ndax dikkalu leen ah kay dikkal na leen kay nabawu la si na solos gaa ñi nga xam ni min xablikum jëkkoon nañ leen xaw mi nooyin muy niti nooyin wa aadin ak niti aat xóot moo doon seen yonent wa sàmmooda saaliw lañ yónni woon ci ñoom wala si naag gaa ñoo xam ne min baadin ña nga ca gannaaw ñooñu bari ba dee laa yàlla mën a xamuleen leen illallahu ndareg yàlla li kasratihim jaaduhum dikkaloon na leen rusuluhum seeni ndaw bil bayinaati ci ay lay faratoo mu ñu def ñu delloo ñu ub ay déewum seeni loxo fexwaayum ci seeni gimiñ fab seen loxo këpp ci seeni gimiñ mel na dañoo yéem loolu ne loolu dootuñu ko dégg wa xaaloo ñu ni inaa niki nun kafar naa weddi nañu li maa ci la nga xam ne urtum yónnees ñu leen ko yéen yónnante bii ci lañ leen yónni aha wa inaa niki nun nun day nun yéefar yii la fi sàkkin ñoo ngi ci sikk muri bin su tedd ñoo ngi ci sikk ñi naa taddoonaa ci li ngeen nuy woo illahi ci li ngeen nuy woo noo ngi ci sikk muri bin su tedd naa taddoonaa muri bin su sax ci li ngeen nuy woo xaalat wax na rusulum seen yonente ne afilaayi sabtun borom ibnu maayam nee na ndax sikk amatina baada alfi dalalatin afilaayi sabtun baada alfi dalalatin gannaaw junniy lay alxuraan ci alxuraan la tuddee alxuraan nee na afila ndax nekkati na ci yàlla sakkun sikk istifaamu inkaar yàlla day laaj tey weddi sikk ah sikk kay nekkul ci yàlla laa sakka fi tawxiidihi faatiri samaawaati moo bind asamaan yi warla leen suuf si yaddookum mi ngi leen di woo lu mu leen di doye li yaxfira ngir ne jéggal lakkum ñeel leen min sunoobikum ci seeni bàkkaar yéen tawxiid yi yéen doomu aadama yi am tawxiid wa yooxirukum lu mu leen di doyee ba tey te mu di leen muñal bila asaabin man leen a bugal yéexe mbugal ga bañ koo def ilaa ajalin bel ci dig musaman ba di bu ñu tudd muy ajalul mawti xaaloo ñu ni inaan tumoo déet yéen ilaa basarun misluna déggal yonante yi nee nañu yonant si yonante yi doon yónni fi ñoom basar ngeen basar moo di sëti mbindi fii moom lañ moo di aadama bokkul ak mabdawul xalqi ba yàlla bindee bindi fii bokkul ak mabdawul basar bu yàlla defee basar moo tax ñaare buñ dee xaste dañ naan moo tax yonente bi ne inama am na basarun mislukum basaran mooy ku am jar bii bokkul ak xalqu yàlla bind na bu doon bis dañ naan yàlla bind na xalqu yi yàlla bind na lépp ba six heures jot mu soog a bind aadama moo tax aadama mooy sëtu bind mooy caatu mbind fii mu soog a bind aadama ñetti waxtu des ci jant ba bu doon ab jant ci la ko bind ci ñetti waxtu yi ci lañu ko yóbbu ajjana timis di jot mu génn ajjana moo tax mu ni ñuy wax naan loolu la naan ko mooy ilaa basarun ilaa basarun doomu aadama nga rek doomu aadama rek nga basarun mbindiif nga rek mislunaa moo xam ne sunu kat nga turi doona ñuy nam anta su doon turi doona ngeen di nam yéen yonente yi anta su doona ngeen kat te yéen amaakaana ba ba nu mën a nekk yax ba du di jaamu amaakaana la nga xam ne nekkoon na ko kon ngeen kat nu amaakaana ca la nga xam ne nekkoon na ko yaa ngi dund doon ko jaamu abaawa naa suñuy bàyyi da ngeen noo bëgg a set ba duñu ko def léegi faatoo naa indil leen bi sultaanin ci lay wut tax ngeen di def loolu mu biinun wu di wóor nag xaalat tontu xaalat wax la rusulum yonente lahum ñeel leen innaha nu déet ñun ilaa basarun wax ngeen dëgg de mbindiif rek lan da doyorob der mislukum muy seen kem waaye la yonente bi waxoon ni xul yi na naa naa basurus mislukum wante yooxa illa ñoom tam ñu ne walakin wante walakin lu ñu wante walakin wante ndey wax ci wolof laaxa yàlla yàmm nu xéewal na allah ci allah man yasaaw dana xéewal allah man yasaaw ci ku ko neex te noo ko neex mu xéewal walakin laaha yam nu allah man te képp koo xam ne ci yasaaw neex na ko min ibaadi yi ci jaamam yi mu xéewale ko ak yonent te yéen amu leen ak yonent wa maa kaana wa maa kaana yellul lanaa ñeel nu an yaateeku nu dikkal leen mooy mënuñu ko rek bi sultaanin ci lay lu dul dafa jaare ci yàlla ilaa bismillahi ndare ci ndigalu yàlla ndax nun ay jaam lañu abidun mar booboona ay jaam lañu yoo xam ne yi dañu noo moom loolu wax leen koog rabbu waxale tawakkal yi nawakkilu mu'minuuna ñu gëm yàlla ñëpp moo leen war ala lay ci yàlla wamaa lanaa lanu dal ñun yonente yi an laa na tawakkal ba duñu wakkilu ala lay ci yàlla dañuy def tawakkul waaye duñu def tawakkul ñun de waxat aadaanaa jubal nañ moom yàlla subla naa suñu yoon wala nag dara na dana ñi alaamaa ci la nga xam ne aafituma yéen a ngi ñu koy lor yéen ñu bon ñii dafa lay tawakkal yi ne wattilu mu tawakkiloona mboolem ñii wattilu nañu wattilu ala laay ci yàlla waaye bu ñu wattilu feneen waa xaala wax na la si na gaañu nga xam ne kafiroo wedd nañ li rusulu ñeel seen yonente waa ji leen lan nuxrijannakum bàyyi leen seen wax yi ñàkk fayda yi daanu leen génnee de mi ne ar laa ci sunu réew mi daanu leen génnee ngeen génn réew mi aw la taxaw dun taxlib la dafa mel ne dañ caa nekkoon bam naan leen dañ leen di delloo ci sunu diine ji seen bëgg seen bëgg bu ëpp moo tax ñu naan aw la taxaw dun wala nu delloo leen fi millatina ci sunu diine ji bëgg gaa ëpp fa awxaa wax yu rabbum seen borom il leen ci yonenti yàlla ne ko dem leen wax leen li ngeen war a wax def leen li ngeen war a def nun yàlla la noonu kan na noo ngi leen di xamal ni daanu xalak saalimiina way tooñ ñi yéefar ya wa bu ñu leen alagee ba pare wala nuskinanakum yéen yonent yi daanu leen dëkkal arda suuf sañu dëkkoon ngeen donn leen min baadihim gannaaw ba ñu ala ko saalika loolu yi ndimbal nag saalika boobu dono loolu yi ndimbal li man ñeel na ba léegi ñeel na képp koo xam ne kii xaafa ragal na maqaam yi sama taxawaay sama saxawaay sama ndigal man yàlla fa amaa man xaafa maqaama rabbi wa na an nafsa xanil hawa fa in al jannata hiya mahwa ragal sa maqaamu borom ragal sa lépp looy bëgg a def nga ne ah yàllaa ngi taxaw kat booy bëgg a pen nga ne yàllaa ngi taxaw booy bëgg a def lu araam nga ne yàllaa ngi taxaw ngay bëgg a jaaloo ne yàllaa ngi taxaw kon nag duma ko def fa amaa man xaafa maqaama rabbihi ragal gi mu ragal taxawaayu borooma wan na an nafs mooy tere bakkan bi anel xawaa ci li ko neex kooku nag fa inal jannata hiya mahwa nee na li man ñeel na képp koo xam ne xaafa ragal na maqaam yi sama taxawaay man yàlla sama saxwaay waa xaafata mu ragal waxi di sama tëkk sama daal wastaftaxoo ñoom day yonante ña ngay sàkku ubbiku di sàkku ndimmal wa xaaba te perte na perte na lu jàbbaarin bépp borom doole buy def lu ko neex an nii dim gi di dëng nee na min waraa yi nekk na ci kanamam na dox rek nekk na ci kanamam jaxanamu jaxanama jaxanama ngi ci kanamam min waraayi ay min amaamihi nekk na ci kanamam aha waxu waraawu amaam la fiy firi jaxanam te dana ko dugg wa isqa ñu nàndal leen ci jaxanam min maayin ci ndox sa didin muy dëtt wànjar muy wadd di rogaat di rogaatu ke dëb mi ñi ca sawara ñu di ko dëkkandu di leen ko jox ne leen ñii yéen a bokkoon jëf yëpp ca jarawoo nee na ña ngi koy jéem a wan doon yëpp ca jarawoo ñu di ko wan da nga naan yëpp ca jarawoo ña ngi koy jéem a wan wala yaakaar doo xawul mën a nekk xawaawul yu siiqoo ñuy mën a jàll ci put ga yu siiqoo ñu mën koo wan ndax bon gaag naqari ga aha aha ulamaaw fiq nag ci foofu la ñuy waxee naan ndax ku fot ndax man ngaa fot li ko ci sàngara wala de ah ñu wax nañu lii ñu wax la
fekk moom nag may ndox waaw xataat te leneen nekk fa te fot bi metti na sàngara rek fi nekk ah waaw bu fekkee ne dara nekk am na ñu ne day mën naa nekk ci kaw dara réew xanaa as ndox su di tab ba rek ah day garab bu ko mën a faj.
waaw ah ma ne waaye du caagi xam nga ñu bari ñoom dañu yaakaar ne.
ah déedéet déedéet def na ko garab boo.
déedéet déedéet waaye déedéet fekk ndox ma rek dafaa ne moo.
waaw dafaa ne.
waaw wa yaatihi l mawtu aha dikkal leen nag dee dikkal leen al mawtu sababi dee ah min kulli makaanin bërëb bu ne dee jóge fa tànk ya dee jóge dee nga jaar ca tànk ya dee nga jaar ca loxo ya dee nga jaar ca bopp ba dund baa ngay metti xol baa ngay metti ndigg laa ngay metti bunt bu nekk dee nga fa jaar asbaabul mawti asbaabul mawti aha te waaye ngay bind rek loolu daa mën a yaram wéppay métti fu nekk dee nga fa jaar bunt bu nekk dee fëgg na ko bëgg faa jaar asbaabul mawti mhm, wa yaatil mawtu min kulli makkanin loxo yaag tànk yaag bopp baag biir baag ndigg laag lépp te wa maa huwa te déet moom kat bi mayitin ba mu nekkee ca sawara bi mayitin muy mën a deet carrément laa yamuutu wala yaxya ah ndax bu dee dootu ko yëg bu dee dootu ko yëg day dund te wa min waraayi nekk na ci gannaaw lii nu tudd lépp ci mbugal wa min waraayi nekk na ci lii lépp asaabun geneen mbugal nag xalisun bu fukk ca téeméer ca junni ca mbugal yooyu ñu doon wax xalisun bu tal nag jokkaloo ci moom nag yàlla nee na la fi na ña nga xam ne kafaroo yéefar nañ weddi nañu masalu la si na loolu mooy misaalum ña nga xam ne kafaroo weddi nañu bi rabbin ci seen borom loolooy seen misaal ahmaalum waaye ñu ne moom la ñu defoon nag defoon nañu yiw de yàlla nan la ñu defoon karamaadin mi ngi mel ne dóom istaddat boo xam ne bii riddina riyaaw ngelaw bii ca dóom ba fi yawmin ci bis aasifin bu mbóoya dóom boo xam ne bii dañ koo sotti mbóoya riddi ca walladina kafaru ahmaalum ka saraabin bi qiyatin yaxsibu zamaanu maan ata isa jaahoo lam yajid sayan saaru noor ka saraabin bi qiyatin nga di ko seen muy leer nga defe ne ndox la ba nga dem doo fa fekk dara noonu la seen jëf mel sarax yi ñu doon defar yu baax yaa dara karaamaadin istadat biir yaaw fi yawmin xaasifin laa yaqdiruuna dootuñu gis dara ñoom yéefare laa yaqdiruuna dootuñu gis dara moom la jublu ci laa yaqdiruuna dootuñu gis dara mi naa kasaboo ci lañu fagg woon allah seen dara dara dara eh saalika loolu huwa moom dalaalu mooy réer ga mooy alkande ja albayi dëgg sori yërmande aha ñoom ba ñuy def loolu xanaa dañoo gisul kàttanu yàlla allantara mu ndax dañoo gisul woon ñu ana laa naka yàlla xalaqa moo bind samawaati asamaan ya wal arla xeeti asamaan yëpp wal arla ak suuf sa bil àq mu bind ko ci dëgg ini sa ndem neex na ko yusirku mu demaleen yéen nit ñi wayaati mu andi bi xalqin ci bind wayaati mu andi bi xalqin ci bind jaddidin bu bees yàlla fu mu toll rek ñu ngi indi xalxin jaddin fu mu toll rek wax na ko ca saaru xaaxwal quraan yi nee ndil mbi bind bu bees fa basaru kal yow ma nag addidun bu neexee ñu andi bind bu bees ndax madadu rahman du dog madadu rahman du dog madadu rahman du dog su ma xoolee alaaji malik wala ma xool sëriñ Taal wala ma xool sëriñ Kebe mag geesu nii rek ne nii xoolaat leen xool bu jëkk ba ña fa nekkoon bu ñoom yokk nañu wala wàññi ko nañu yal na leen yàlla defal bu yokk waaw ak ñëpp nag ma doo raxmaan tëb bug yàlla gi du dog yàlla fu mu toll mi ngi indi bind bu bees te ko yokkuwul wàññi ko nga ah ku dëkkee jaamu kay dëkkee yokku te ku dëkkee xalaat ci yàlla yaa ngi dëkkee jaamu yaa ngi sujjóot te doo siggi am na ñoo xam ni ba leen yàlla bindee ba léegi ñi ngi sujjóot siggee guñ Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. moo tax ku ni ñëpp a yem yaa mën a fen ah ah ah ah Mhm. laa yaqdiruuna mimmaa kasabuu alaa shay'in saaliku wala daarul bay alam tara أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يسويكم وياتي وهو لن يكون بخلق جديد خلق جديد خلق جديد خلق جديد خلق جديد rek moom la ñuy dundee wa ma salika déet loolu dafa la bind bu bees bi asisin muy jafeñ ala lay ci yàlla yàlla loolu jafewul ci moom bi